maa la ko wax njaag dafa sonn xaw naa dee dina ko nangu mati na fi kaani yéy na fi xorom fel fete fi sili bu xale kon dina ko nangu kaala gi ci bopp nag ci ndigg la jóge kon njaag dina ko nangu ci ki ngay teral ndeyam ah. benn jaaro seeni or bu ànd ak jaaroom waaw waaw ñaar ñaar tubarkalla ngalam li woy yu bëgg buñ ko gisee jël lépp buñ ko gisul daas paaka ngalam li woy yu bëgg di gi nee na day teral yaayam tubarkalla yaay nga ne ko sax ba di daw ba day dawal yéene ñaari anoor ci njaag gi gi day tëral yaayam day dawal asaka yéene waaw waaw solal ko mbubu ah xoolal lii de moom a man de lii allah noonu tabaarkàlla eh, xale bi nga xam ni moo dëkk Grand Yoff eh, xale bi nga xam ni octobre moom eh, def ko ñor lool lool mu ciy def ay jéego yu am solo tey mu ñëw indil ñu yaay vraiment way yaayam yaakaar naa ni xale yi xam nañ ni ci waay juri la ñu tey ah, mu nekk lu am solo uh-huh. sa invité ngi nii toog sama invité dama ko namoon sax doomu ndeyu Faa Jéego nuyu naa la Guigui chéri doon jéego chéri doon jéego eggu caacee <laughs> may naa la bu baax Samira di kontaan trop ci ñëw tey plateau bi ah mu tombeek octobre rose comme ni ko Abba waxee vraiment ma nekk koo xamante ne nag euh, dama ci actif trop voilà kontaan daal ñëw tam mooy yaay mhm. woy ko sama yaay woy sama tante woy ko yaay Sénégal yëpp parce que dañ ne euh, yaay moom ku ko toppatoo mooy sa àjjana mi ngi si sa mi ngi si sa tànk mhm. sama yaay comme ni ma koy waxee ci woy bi rek mooy sama gént bu neex a neex te li may def rek mooy liggéey jox ko lu dul jeex a jeex mhm. man sama yaay rek moo mën a ñëw ma jël li ma yor ak lu ma yorul yëpp jox ko sama yaay rek moo mën loolu ci man lu mhm. ma sax ne ah suba war naa ndékki ma la war naa añ loolu sama yaay moo ko mën te balaa suba boobu di jot yàlla may ma lu raw li ma ko jox donc yaay foog naa ñëpp kuy toppatoo sa yaay tam noonu la yaay mel ci yow. mais sa organisation bu weesoo ni que macha allah dafa neex a bëgg. ku ko xool bëgg ko mais dama dama dama gis da nga organiser trop trop lu jëm ci wàllu way heure bi ngay way fi nga koy génnee yàkkamti woo chaque moment am na lu war a génn te loo génnee def ci promotion bi ci war ba Sénégal yëpp xam ne Guigui génnee na organisation boobu saaf la wala yow études moo la may loolu c'est quoi waaw merci beaucoup Abba c'est bien ah, nga def remarque boobu vraiment loolu neex na ma trop euh, comme ni nga ko waxee rek jàng dafa am solo mais jàng tam lépp ci yar la commencé. parce que yar moo lay wan boo demee école bu professeur bi di wax nga a perturber suivre lu professeur bi ah. organisation boobu man fa la commencé. man mel naa lu nekk sopp naa def naa lu ne mais bu heure liggéey jotee man heure jàng jotee dama koy def ba mu war. Mhm. bañ na ko bi may nekk lycée di ànd ak sama morom yi ñoo dem ànd def pagaay yëpp mais note bu ñëwee man maa fay am 18 ak 20 ba dañ ma doon ne yow foo jaar. tu vois donc loolu dafa dem ba feeñ ci sama liggéey ñëw feeñ ci sama musique parce que en général li ñuy gis Sénégal fii mooy musique bi dafa xaw a mm, naka lañ koy waxee sax. voilà dafa xaw a jaxasoo. Mm-hmm. man nag damay xam temps fort bu ma war a génnee lu ma war a génnee ak lu ma war a woy ak lan la àndal. Mm-hmm. comme ni nga ko gisee mois d' bi ñu ngi octobre rose donc mois de la femme la ma woy ci sama yaay gis nga clip bi ay jigéen kese. Mm-hmm. c' est la première fois ma clip amul góor. ay jigéen kese ñoo fi ne ay maman ñoo fi nekk ay sista ñoo fi nekk pour wan na rek ne euh, euh, weer bi laay gën a sargal aussi. maa ngi sargal sama yaay mais mois d'octobre bi laay gën a sargal aussi pour jigéen ñi xam ne jigéen nii la war a mel te pour nga mel nii il faut nga teel a fagaru ndax fagaru moo gën faju mhm. parce que boo feebaree doo tal defaru boo feebaree doo tal fecc boo mhm. feebaree li ngay gis nii ci clip bi noos doo ko tal mhm. donc mu nekk loo xamante comme Abba pour rejoindre sa question rek tey moom yaa ngi may doog bi ñu xamante ba sama xarit nga am euh, sama xarit nga <laughs> duggaat clip yi day riche. li muy sañse oto bi muy dawal yooyu yëpp wax nañ musique fayewul noonu. donc xam nañ li nekk ci ginnaaw ak ñi nekk ci ginnaaw mais su lépp rek ci yar la <laughs> dëgg la eh. bi ngay gis nii mhm. sama tante yi ma ci wëy ne su may dem marché soxla dara ñu jox ma su may soxla yére ñoom ñoo ko def ci man ñi ma wëy nii ñi ma sargal nii ñoo ma doon solal di ma jox ma lekk di ma jox ma naan comme ni ma ko waxee léegi bi ma màggee laa xam ne nit dina toog du yor mais ma dama nekkoon xale dama leen di ñëw fekk rek ta Antoine ta anoo jox ma lii jox ma ma ne déedéet tey jii su ma demee ba nekk sama carrière deuxième album ma wéy leen duggal leen ci xoolal meeg ni ñu mm, mm, mm. defar leen ba ñu baax parce que ñoom ñoo ko liggéeyal moo tax ma defal leen mais mis part la promotion de clip vidéo gis message bi may lancé rek Samira mooy li may lancé chaque jour te xam naa loolu si yow tam sa combat la muy jigéen ñi nañ dem dépisté wu. parce que cancer du sein dafa nekk feebar boo xamante ne boo ko teelee dépisté mën nga tane. temps bu yàgg ba la nga wax ko am cancer tu es condamné ay 2 mois man ma jël sama sama doole li ma am ak li ma amul yëpp di ko def ci combat bi depuis samay début depuis 2016 ba tey maa ngi organiser festival wax Grand Yoff jot na show ma dem ko jot na show pour décentraliser ko parce que ñëpp koy laajte parce que su may de Grand Yoff da ngay gis jigéen ñi fu nekk la ñuy jóge di ñëw di dépister wu bi yoon nag ma ne dama koy décentraliser donc le octobre bi incha allah damay organiser dépistage euh, euh, au niveau du poste de santé de Grand Yoff ak madame Bakayoko donc pour dépister jigéen ñi en même temps euh, Liska dina ñëw ñi nga xamante ne ñoo ma yàgg accompagner. Mhm. Marie dina ñëw. ñoom ñooy def lépp li nga xamante ne mooy dépistage bi le 16 du mois d'octobre bi le 15 bi laay def soirée culturelle bi Grand Yoff pour femmes yi ñëw parce que comme rek joindre l'utile à l'agréable il faut xale jigéen yi ñëw defaru fecc mhm. comme ça nga mën a lancer wàlla sa message donc ñoom incha allah dinañu dinañu def euh, euh, euh, soirée culturelle bi samedi bi le 16 incha allah. Mm-hmm. ñu def li nga xamante ne mooy dépistage au niveau. du poste de loolu ci weeru ko loolu ci weeru euh, octobre bi la. noonu def euh, ñu wax ci cancer geeg yooyu mais tey euh, nañu ñëwaat ci li nga xam ne mooy projet yi ñëwaat ci son bi fan lañ ko enregistré vidéo bi kan moo ko def ak ku ko bëgg a seetaan fan ngay dem sant ñi nga bëgg sant gërëm ñi nga bëgg gërëm balaa ñuy jël beneen invité. te kilibam yëpp rafet macha allah. waaw alléluia bi ku rafet ku rafet lu rafet ku rafet lu rafet lay def. yaa bi ñëw dong may xolal yi couleur yi. woo naa ko message naa ko du dégg. respecter dialogue bi islamo-chrétien bi du dégg wax naa ko ba son Pape Samba nga ni ma yem fuñ ma yemloo ma yem fuñ ma yemloo ma yem ci émission yàlla na xel dee yàlla na xel dee ay <laughs> Pape Samba kooku sama kàlla lekk rek lay def moom caamen boobu <laughs> voilà donc euh, Abba comme ni ko gisee rek projet yi mooy continuer promotion album bi parce que album bi génn na onze titres la mu tudd Esprit euh, gars yi ñu ngi koy streaming au niveau des des plateformes de téléchargement euh, ma génnee clip bi nga xamante ne mooy yaay jagleel sama yaay sargal sama yaay. sargal yaayu àddina bi yëpp. clip bi nag ñi ngi ko defee euh, fii lañ ko defee Dakar ah may remercier Ousmane Ndiaye Dago moo ci jàpp bu baax a baax. Mm-hmm. donc clip bi ni nga gisee nii sañse bi yëpp G plus couture moo ko ñaw muy sama sœur Soso ak Keso. Mm-hmm. ñoom ñoo ñaw ñaw bi oncle des VIP moo ma sañseel. mairie maa Abaate gis nga mais ma lay wax ne ñoom ñoo ma doon defaral bi may def clip bi dañoo ne sama yaay ñoom tam dañuy cotiser participer ci clip bi pour war na rek ne ñu jàppee ba tey ba bi ñu gisee lu ñu warul jàpp sax ñu ngi jàpp ba tey voilà mu nekk clip boo xamante ne nag mu ngi YouTube mi ngi YouTube da ngay tapé Guigui yaay ah gars ko dem get yónnee ko seen yaay yi mm-hmm. ah seen yaay yi bég kontaan clip boo ko tegalee sa yaay jarul nga koy wax ma je t'aime ah boo ko tegalee sa yaay rek bàyyi ko mu xool waaw di remercier Oum Sow tamit ah ngi ci clip bi mm-hmm. Pendo gisee vraiment nekk artiste yu ñàkk ki ñaan parce que c'est nga gis artiste di def dara woo moomu bu ñëw sañ sa def lépp sans rien attendre en retour ma leen di remercier encore une fois au passage waaw sant nañ la gërëm nañ la euh, man nag damay tooñ du bàyyi kenn ñëpp laay tooñ uh-huh. mais moom nit ku sincère la nit ku entière la nit ku mën nitam la uh-huh. nit ku jàpp bi dafa ñeme sonn ci doomu aadama donc loolu moom terewul nag man lu xew ma toon ci mais boo xamee li xew ci suuf da ngay ci nit ki mu doon quoi yal na yàlla sàmm la waaw bi ma defee vidéo ak Oumou Sow bi am na vidéo boo defoon xam Sénégal dañoo mën a jaxase nag mm, mm, mm, vraiment comme ni mu wax rek du ñu xam li xew ci suuf ku nekk di ma envoyé vidéo bi ne tontul abaa tontul abaa <laughs> ma ne ko kii na taxaw suñu buntu sax di woote sabar du ma ko sax xool parce bu baax a baax a waa ministère de la culture ah par le de madame Khoudia Diagne nga xamante ne moom tam jàpp na ci bésu le 16 bi ak euh, euh, madame le maire de la ville de Dakar muy madame Soham Wardini moom tam jàpp na bu baax a baax a baax ci bés bi mooy ñi nga xamante ne vraiment jigéen lañu te jàpp nañ ci abaa dama bëgg nga wool ma Marème Faye Sall. yaay booy wuyul gigi jàmbaar la. doomi Grand Yoff la xale yi bëgg nañ ko mhm. mag ñi bëgg nañ ko image ba rafet na mhm. et puis lu positif rek lay véhiculer boo ko wuyoo war nga koo wuyu jàmbaar nga bëgg jàmbaar di jàppale jàmbaar ah. wuyul gigi gigi bu la woowee sms ma yal na yàlla defal leen jàmm <laughs> léegi fii tol ni Efa ah. dafa woy euh, jigéen Efa dafa woy way wu am solo ah. kan nan dañ koy dem xool te ñëwaat ci plateau bi